la la la la la la alhamdulilahi rabbil alamin summa salaatu wa salaam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum euh, non déjà vivre ensemble lii da koy yàq da koy yàq daal man ma bëggoon une heure de temps defaguma diis secondes mu ne ma gàttalal pourtant mun na ma bàyyi ba ma wax dix minutes mu ne ma dese nga cinq minutes. waaw léegi dama xamul fan lay commencer parce que du ma indi aaya du ma indi xadis du ma indi taarix ay métaphore laay joxe ñu gën a mën a dégg thème bi ma jël dofu sëriñ bi wala ma jël dofu quartier bi. ah soxna yéen lay laaj ma jël dofu quartier bi dofu quartier bi dafa sonole ku romb ci quartier bi ngay góor ngay jigéen dalay mbej léegi quartier bi am insécurité boo xam ne ñëpp ci téer la ñuy dund ñu ne nañ ko rey walla ñu yóbbu ko foo xam ne benn mag ne leen déedéet koo gis am na njëriñ ci société bi benn bés benn dofu étranger ñëw ci quartier bi fekk liir bi ñuy tudd mu jël ko dem ci kaw teraas ba ne day sànni liir bi gars yi ñëw pour sauver ko pompiers yi ñëw service di d'hygiène police gendarmerie même ni ñu koy waxeeti ASP yi ñëw nañu ku ko jegee rek mu ne damay ànd ak moom gars yi delluwaat gannaaw. dofu quartier bi ñëw ne lu xew ñu ne ko jógal fii nit ñi la ñu mun a lijjante nan la ko dof di lijjante muy laaj di laaj ba daj benn mag mu ne ko dañu am problème ak dof bële mu ne may leen ma fukki dërëm gannaaw loo koy doyee mu ne may leen ma fukki dërëm ñu may ko fukki dërëm mu dem yi xam nga Nelson am na loon seet bu tuddoon Nelson mu ñëw ci ci ci ci ci ci ci rez-de-chaussée bi ne yow laay waxal yow mu ne ko naam mu ne ko boo wàcculoo liir bi damay dagg étage bi nga dee ak liir bi dof bi ne dimbali leen ma gaaw am leen seen liir ma daw balaa muy daggee étage bi li ma bëgg a wax foofu mooy ñun ñëpp mënuñu yem degré de compréhension mënuñu yem degré d'engagement souvent yaa ngi wax nit ki il est faible sur ce point alors ko ci beneen point moo la fa gën a efficace junni yoon dangay dem ci mouvement am na koo xam ne bu ñuy cotiser dix mille moom mun na cotiser cinquante mille waaye du ñëw réunion absent rek ngay gis bu ñuy def colloque du ñëw séminaire du ñëw mais lépp loo xam ne pour le bon déroulement des activités il met la mais dans la poche mais ñëpp bu ñu toogoon sa kër di def la main dans la poche est-ce que activité dina am du am. beneen bi ki war a noppi dafa war a noppi Sénégal nag ñi war a noppi féetewoo déglu ñooy wax su ma nekkoon rek ne docteur man euh, kan laay kan laay yam Tidiane Cheikh Ahmed Tidiane l'abbé yow laay waxal su ma ñëw rek ma ne la sa discours bi tu as passé à côté lan ngeen di yëg yéen te pourtant man sama bopp. mun naa bañ a comprendre li mu wax mais si ni ma waxee rek ngeen di laa leen di heurter tu as passé à côté mais su ma waxee ni je crois que tu as passé à côté du ma leen heurter mooy le choix des mots c'est très important dans la vie Cheikh Makhtar mii toog su ma ne ko dëjul fii wala ma ne ko riijul ñu ne ma yaa ñàkk teggi te toogal riijul dëjul bankul benn la benn la yooyu yëpp benn la am déet beneen bi li gën a bon mooy nga fi nga toog rëy lool fi keneen toog tuuti yow nga nekk ci étage boo xam ne benn immeuble huit étage ni ngay séenee ko ci suuf mu tuuti moom noonu lay séenee nga tuuti soo ne ko yaa tuuti yaa ngi mel ni sanqalañ mu ne yaa ngi tuuti yaa ngi mel ni lan njugub te pourtant gis-gis boobu nga gis moo la nax temps bi nga nekk espace bi nga nekk ak angle bi ngay euh, analyser mbir yi dafa war a nekk angle boo xam ne dafa am flexibilité nga xam nan ngay mën a appréhender les choses kii di wax lan moo tax mu wax fan la waxee ban contexte moo tax muy wax nga rafet njott ci moom loolu bu ñu ko defee nañ bëggante beneen bi nag nañu góorgóorlu aslih nafsaka wadu xayraka bu fekkee ne ñun suñu biir amuñu lu ñu transmettre lan la ñuy def xuloo xeex dàgg sante génne nit ci lislaam tooñ tuumaal kese mais su fekkee am nga programme bu leer xam ne al islaamu nijaamu so chaamilu la tanaawarul mazahirul xayaa jamian boo xamee ne lislaam dafa global globaliser lépp kenn ku nekk ci benn pàcc ci lislaam da ngay xam ne benn pàcc la ci nekk yow nga xam ne benn pàcc ngeen ci nekk pàcc yooyu nag mooy ensemble bi te fekkee def nañ loolu incha allahu rabbi dinañ góor mu doon nga ma mayaat 10 minutes wala salaamaaleykum wa rahmatullahi wa la